koy daal dala ko nga xam ne rek moom moo di Yaya Jammeh monsieur Yaya Jammeh dala ko ci li xam ne rek moo di suñu premier numéro de la semaine ci seen émission bu mag bi la mu di Nepal musical Jammeh eh, jërëjëf bon sant yàlla mm-hmm. ala gërëm di la dee sant am mm-hmm. bi xam nga kan bi lu taxoon ma ko dee yor mm-hmm. parce que boobu présidente la ah, d'accord kon nga léegi demal naka eh, consultant xam ne dama dee woo. Mm. pour may leeral ay mbir. soxla ma yor kaat. ah d'accord pour ñàngal la woon. la pour ñàngal la woon. waa président waay Yaya monsieur Yaya lan moo tax nit nit di nekk li nga xam ne rek moom moo di dictateur en tant que expert en matière de dictateur lan nga ci wax dina bëgg nga nga leeral daal nit ñi xam. xam nga. Mm-hmm. dictateur kenn juruwul lay tegaw. kenn judd rek nekk dictateur ah ndax lan loolu ndax lan loolu pour nga nekkaw dafa mhm. am fooy jaar pour nga mun a nekkaat dictateur fan ngay jaar xam nga mhm. nit mhm. mooy def nit nit nit mooy def nit nit ah, loolu waaye gis nga nit mooy soppi tamit nit dëgg la yaa ngi dégg wax bi dégg naa wax bi xam nga bu fekkante ni jamono bu nga xam ne dama yor dëkk mooy dëkk bu tuuti boobu nekk booru Sénégal mooy bi nga yoroon bu ma sax tudd mooy bi nga yoroon Gambie déglu ma rek mm-hmm. bi may a mm-hmm. si kanam mm-hmm. ñu commencé di liggéey ci sunuy biir am ñoo xam ne dañu dee taaw ñuy yëkkati ay kàddu di ma wax yow mun nga def yi mun nga def laa mun nga def laa ñii laa weer. Mhm. ñoom ñoo lay soppi. ñii ñii am yéene. ñii nekk ak waaye ñu nga xam ne ñoo lay weer. Mhm. ñoo lay soppi. di ma wax. Mhm. yaa lii neexul lii war nga def li lii war nga doxalee nii lii war nga ko doxalee nii di nga def nii di nga dee def nii ba tey lu am am. mujj gi. dootuloo gis dara. ndeysaan. ñoom li lay wax rek ngay. li nga dee gis mooy ñoom lu ñu bugga nga gis ko loolu lañ dee jaar ak yow pour nga ko dee gis. dëgg la ak tamit ñu xamal la ne la yaa nekk ak président lu la def ñu gém la ko def ko ci sa booba ba nga continuer doxalee noonu. Mm-hmm, duñu la wax mu ko dëgg. duñu la wax dëgg. ñu la dee weer yëpp. Mm-hmm. li ñu bugga mooy seen njariñ te seen njariñ mooy bugguñu di la wax dëgg. ñoom yow la affaire bi yow la. seen njariñ te ni affaire bi. du yow. seen njariñ mi la. seen njariñ mooy sa defet yow. yes très bien ah d'accord xam nga président fekk fàtte nga ne yow. mbir mi du yow waaye réew mi la. dëgg la yaay foofu yaa ngi koy doog xam. bi nga daanoo ngay soog a xool nga gis. Ah. moo tax ma mun a nekk consultant. bravo. Mhm. lu ma doon. Mhm. ba wax ne yaa jaame nii ak nere. lépp si ñoom. te lu koy indi. Mhm. nan moo koy indi. def ko dee indi. faiblesse comme naka. xam nga euh, complexe mooy indi nit ki di def loo xam ne waru ko dee def. Ah, kon yow bi comme yow nga nekk koo xam bu nga nekkee xale. avantage yu nga xam ne sa morom yëpp amuñu ko woo am amoon nañ ko yow amuloo ko. ndeysaan kon ça veut tey nga dem ba yor réew mi pour wan ñooñu ne leen eh, man la ba yor réew mi. fàtte nga yàlla. kon loolu lépp ci complexe la bokk. yow kon da nga complexe woon. dëgg la jàmme dëgg la li ma daal. moo daal il leer. li ma dal moo dal ku nga xam ni moom la ñu tuddee Staline lu ma dal moo dal Sidi Ahmed Dada. Mhm. loolu mooy lu nga xam ni moo nekka ñun ñëppa ñoo yem leena faiblesse Hitler dafa gàtta wax ne almaa day njool te dafa gàtta xoolal loolu mhm, complexe complexe la dëgg la parce que bu gars yi taxawee tiim ko xoolal dictateur nord-coréen bi daf doon jël bopp bi di koy yëkkati défrisé ko pour karew gi jóg pour mu yëg ni njool na. da fekk njool dafa gàtt ndaama la ah. mhm. Staline loxo bi nii la defoon. daf ko doon nepp loolu moo tax mu defee loxoom bi nga koy ñaawale. Ah. complexe la. ndeysaan yow nag sa bos la. su ma bos nag man ñàkk a jàng la. su ma njàng moo desee xóot. fooy tax ku ma gis ngay jéem a wax njàng mu xóot rek. du ma buggaal lu dul dugal la ci kaso bi mbankaam. ndeysaan nit ñi xam ñu woon loolu. bosu Macky Sall xam nga lan la. la bosu Macky lan la. ñëpp ñi ngi jàngee bitim réew moom mu jàngee université bi. mais ko boobu mooy complexe moom. léegi moom tamit si boppam dafa am loo xam ni dafay jàppadi. ñees am na loo xamante ne bi amoon nañ ko débat ay avantage mhm. te moom mosu ko a am loolu foofu la dee teg moo tax muy moo tax mu nekk nii mu nekkee yes ah d'accord kon dictateur boo gis rek am na lu mu dee neba <laughs> yow sa ñàkk sa dictateur bi nga nekkoon mooy ñàkk a jàng sa jàng xóotul woon bu fekkee Macky la moom li nga xam ne jàngewul extérieur moo tax bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 la 628 99 99 114 yàllu allo allo maaleykum soxna Touka Mbaye waaye fay naa la waaw maa ngi nuyu bu baax ki nga xamante ni kii moom la ñuy tuddee président Yaya Jammeh mi fi jógee Yaya nuyu nañ la Jammeh analyse maa lay fay maa lay man laaj bi man la doon laaj rek bii laaj la waa ni Macky di def nii muy stratégie tëj ñi nga xam ne ñooy opposition bi yow en tant que koo xamante ni jaar nga ci lu mel noonu hmm. ndax loolu da nga ko koy conseiller waaw wala de en tant que un dégg nga xam nga. Mm-hmm. dafa laaj laaj bu am solo. dëgg la. te di ku mu ko laaj kookoo ko war a tontu. Macky. ki mu laaj. Mm-hmm. waxuma Macky de ki mu laaj man la laaj. yooy yaa ko war a tontu dëgg la. Mm-hmm. xam nga Macky Sall. su fekkonte ne tëj opposition rek mooy tax nga falu kon baro du faru Gambia maay faluwaat. dëgg la. opposition wu Gambia ñeneen ñi dama leen a rey ñeneen ñi ma tëj leen. kon euh, kon yaa ci say wax mooy. trésorier ki yoroon keesu parti parti ku nga xam ne moom la ñu tuddee Ousseynou Darba. waaw mooy Adama Barrow. est-ce xam nga ni bët la koy. jaam ak pexeem yàlla ak dogal ba pare bët la koy fàttali du ko gis. du ko gis. très bien. Macky Sall Adama Barrow mi mu dee àndal. waaw. du tëj opposition bi dina bàyyi opposition bi ñu opposé waaye fàtte na loolu dafa am feebar boo xam ni. Mhm. ku muy dal mooy ku nekk si nguur du gis yooyu yëpp. mooy bët la koy fatt. du ko gis. Hmm. tey bu jëloon opposition Sénégal bi yëpp tëj leen dem élection. am na ku nekk à côté. benn jaaykatu madda mun nañ ko taba ci turu opposition bi mu diriger opposition bi fekk moom madda la doon jaay mu gañe ko. trésorier moo ma daaneel si Gambia ma def ñaar fukki at ak ñaar ci Gambie. te mosoo ko xalaat. mosuma Adama Barrow mosoo naa xalaat ne nekk na président. déedéet bu ko dee xalaat. tey yàlla def na ko ko kon Macky maa ngi koy xamal. en mm. tant que un ancien dictateur. Mm-hmm. gën ko see yàgga. Mm. lu muy def nii na ko bàyyi. parce que fekk mi ngi si rek mi ngi dugal boppam si pax. dëgg la Jammeh foofu laa dee ba nga dalee ñëw nag ba tey. Mm. ci télévision yaa ngi doog a wax loo xam ne mooy loolu jërëjëf jàmme euh, mu nekkoon ki nga xam ne rek moom moo di président Yaya Jammeh